di sant ñëpp di féliciter euh, monsieur le directeur euh, du commerce extérieur waaye tamit di wax ni mbette la pour man euh, bu fekkee ci réunion comité national de négociation commerciale internationale di wax ni réunion bi nag ñu ngi koy woo ci perspective ñu ngi am perspective ci réunion OMC bi war a am le 15 juillet maanaam jeudi bii di ñëw ci wàllum subvention pêche si préparer tamit conférence Union africaine xam nga comité national de négociation commerciale internationale moom mooy euh, définir position Sénégal yi en matière de négociation cadre la boo xamante ne euh, ministères yi yëpp ñu ngi ci euh, représenté nag ministère du commerce di assurer la présidence du comité nationale de négociation commerciale internationale di wax ni euh, léegi passé na ñetti euh, ñaari fukki at au niveau de l'OMC ñiy xool toujours nan la ñuy waxtaanee pour am ay règles yu ñu tëral ci mbirum euh, napp ji ndax am na façon napp yoo xamante ne li muy yàqal dëkk yi nga xamante ne ñu ngi dundee ci li ñuy jëlee si si si géej gi bari na ndax boo xoolee dëkk yu bari yu nekk en développement li ëpp ci seen koom ñu ngi ko jëlee ci euh, pêche bi donc dafay am solo ñu xool bu baax nan la euh, suñu yeneen partenaires yi di def pêche boobu ci suñuy côte donc looloo tax euh, OMC ci aussi demande bi nga xamante ne yeneen organisation internationale yi def nañ ko ci moom muy liggéey depuis boobu pour ñu mun a teg ay yo ay ay ay ay règles yoo xamante ne war nañ ko respecter ci li jëm ci subvention à la pêche di wax ni pêche nag am na solo trop ci Sénégal boo xoolee euh, secteur de la pêche daf ñuy jox 2 pour cent suñu PIB ñu ngi koy tiiree ci secteur de la pêche te lu passé 1 million 600 mille personnes ñu ngi ci dund. di wax tamit dañ ciy jëlee 237 milliards ci suñu euh, recette d'exportation donc di wax ni secteur bu toll noonu tamit dañ ko caaxaane looloo tax Sénégal toujours. dafa bokk ci dëkk yi njëkk yiy songu euh, waxtaan bi yi jëm ci négociation yi secteur de la pêche te léeg-léeg da ciy am sa ay taxawaay yu am solo di présider ay ay comité euh, pour le compte des pays en développement donc di wax ni bu ñu amee ay règles yu bees en tout cas ci OMC dana am solo bu baax pour économie bi waaye tamit dina nekk loo xamante ne pays en voie de développement yi comme Sénégal danañu xool nan lañ koy tëralee surtout ci modalité yi d' application subvention yooyu à la pêche illicite non déclarée et non réglementée ndax nag xam nañ ni règle OMC yi am na toujours euh, ay modalité maanaam boo xoolee ci règle OMC yi li ñuy euh, exigence yu ñuy teg pays yi nga xamante ne ñoom ñoo développé ñu ko teg souvent pays yi nga xamante ne moom moo nekk moyen développé donc danañu xool aussi ci wàllu subvention à la pêche est-ce que loolu la ñuy mën a teg loolu yépp ci waxtaan lay nekk beneen bi moom mooy il faut ñu xool nan la ñuy améliorer gouvernance bi euh, ak surveillance activité pêche yi maanaam flotte nationale yi wala flotte étrangère yi ñu xool nan la ñuy doxalee ci biir les zones économiques exclusives maanaam zone yi nga xamante ne foofu euh, waa mu ngi dépendre ci dëkk pour donc loolu dina mën a dimbale euh, PMA yi ñu appliquer ci façon bi gën les règles yi nga xamante ne moom la ñuy teg ci subvention à la pêche euh, illégale wala la pêche bi nga xam ni kenn déclaré wu ko wala la pêche boo xamante ne kenn réglementé wu ko donc di wax ni nekk na ay question yu am solo euh, question yooyu nag Sénégal pour mu mën cee taxaw il faut mu am euh, ay avis yiy jóge fii ci comité national de négociation commerciale internationale di fàttali ni comité nationale de négociation commerciale internationale structure département ministériel yi nga xamante ne yépp concerné nañu par question boobu dañ fi teew donc mu nekk loo xamante ne lu am solo la bu ñu jëlee ci wàllum ZLECA xam nañ ni lancé nañu début échange yi depuis le 1er janvier 2021 waaye boo seetee échange yi euh, taxula demee noonu comme ni ñu ko yaakaaree donc am na lu bëri liggéey boo xamante ne war nañ ko gën a càmbar donc euh, ñu ciy liggéey di fàttali rek ni Sénégal euh, élaboré na stratégie euh, ZLECAfom ci joxante loxo bi mu joxante ak commission économique pour l'Afrique te ci boobu commis stratégie am na ay pàcc yu bari yu ñu teg pour dimbali entreprise yi ñu jëm kanam dama ciy woo bu baax secteur privé ndax nag lépp li nga xamante ne moom la ñuy def maanaam négociation yépp lu ñuy def du am benn solo bu fekkente ne secteur privé concrétiser ko ndax nag état xëy na cadre la mën a teg waaye mënul doxal euh, activités yi économiques yi donc loolu wàllum entreprise la donc maa ngi leen di sensibiliser non seulement ñuy ñëw di fekkee si fu ñuy définir les positions de négociation di fekkee les négociation waaye tamit li jëm si mise en œuvre ñu mun koo doxal bu baax ba nga xamante ne bépp jafe-jafe bu ñu ci jànkonteel tamit ñu ñëwaat ci administration ñu joxante ci loxo rek comme d'habitude ñu mun leen euh, dimbali. di wax ni tamit Sénégal ñu ngi liggéey ci wàllum nan la ñuy war a dimbalee suñuy entreprise ñu mun a euh, ci mise en niveau parce que nag ku wax. Euh, zone de libre échange continentale africaine gis nañ ni pays africain ñoom ñëpp tolloowuñu doole donc dafay am solo entreprise yi am yenn niveau yi pour mën Euh, jongante bu baax ak yeneen entreprise yi looloo tax euh, ministère du commerce à travers la direction du commerce extérieur et le bureau de mise à niveau ñu ngi ciy liggéey pour xool na lañ ciy dimbali entreprise yi bu baax a baax a baax donc chantier yooyu yëpp mu nekk ay chantier yu am solo looloo tax ndaje bu tey bi nekk tamit ndaje bu am solo di leen di ñaax rek ngeen gën a saytu mbir mi ngeen def ay proposition yoo xamante ne non seulement dinañu amal njëriñ ci négociation OMC yi mu amal ñu njëriñ ci zone de libre échange continentale africaine ba waaye tamit mu amal ñu njëriñ au niveau national à travers la mise en œuvre effective donc di fàttali ni le comité de national de négociation commerciale internationale dafay jouer rôle bu am solo non seulement dafay am pàcc bu am solo ci wàllum négociation waaye mise en œuvre tamit accord yi am na si wàll bu am solo waaye tamit dafa war a évaluer accords yi donc ñu leen di ñaax tamit ngeen tabaat ko nga xamante ne fonction yi ñu ko jox yëpp dina ko mën a répondre ci ni mu gënee donc maa ngi leen di gërëm bu baax di leen di sant.